ndax salaamaaleykum maa ngi tudd Adja Ndeye Dieng dëkk Tivaouane Peulh maa ngi tudd 54 Tivaouane Peulh di sant bi sant bi ba ñu koy sant boobu ñu lay xarale waaye fàttali ko ñoo bu ñun ñoo nga dëkk fële ci géej gi ñu gaal bu toj laana puus ko ci pulaar te ñu naan gaal bu toj ci olof fa ñu dëkkoon léegi nag bañ ko dëkkee. sing wa wabai uyon nesa mo non ko fatli mo ne bu ngeen bëggee am courant ngeen am ndox am yoonu ñoo ci fiir biir dëkk ngeen am ay ndox am lépp da ngeen di dajaloo ci benn place ngeen dëkk fa bu ko defee état bi fekk leen fi defaral leen mo gën ni ngeen tasaaroo nekk fa la nekk fii bi kenn mënu ko di jënd du woote réunion ba bàyyi bariwul bàyyi fa dëkkoon man sam papa Ibra mooy ka mayaare mayaare coro ak cili coro ak chef du village ba Omar Tofil ak Mbaye Ba ak Ndiouga Soldat ak Aliou Sodjo ak Ahmed Sodjo ak Ndiouga Soldat ak Mama Del ak Mama Del ak Issa Aminata ak ñooñu ñoo dëkkoon ci ak Ousmane Mbaye te am na ci ñoo xam ne bu noor jotee dañuy ah, màngaan ànd ak seen pour dem ñun ñoo fa toogoon reste demuñu fenn muy Ibra Dieng Aliou Sow Ahmed Sow Cilil ah, Cor Mayara Cor chef du village Omar Tofé Ba ñun ñoo restauré pour dégg bëccëg bi noor ak nawet bi léegi bañ ko ni ci la bàyyi toog ne woote réunion jéeri ja géej gi woote yi waxtaan juboo ci ñu ne leen ni di dem fii toolu Abdoulaye Wade bi nekkee bàyyi ñu ne déet foofu ñoom ay sàmm lañ xëy ñu ne kon dem leen Dakar yéer fa Abdoul Sow fi dëkkoon ñu ne déedéet foofu ay tool yi jaamul seen jur xëy ñu ne kon ne seet leen tund wu leen ne ngeen góor fii ci neexaan gii boobu fii neexaan la tudd ñu naan ko tiir. ay militaire ñoo fi doon def ay baara ñu tudd bu bari woon ay tiir lool joolaay fiyee di fi génn ay sëng ak ay dooni tiir di ko debb di ko dew diw tiir ñu dëkk feeg ñoom léegi ba yàlla defee ni ñu ñu d'accord ci loolu ñu ne góor nañu ñëw fii ci tund wi ñu góor bàyyi di góor ñu topp ci di lobb ñu xale jigéen ba ñu pare ñu toog jàpp benn dimanche jumat panjang jumat panjang gayo caaji moo jëkkañeno ay néegam andi xale yi tund bi yëpp ñëw jël seeni néeg sanc dimanche ba del si waa ñu jël samba caaji andi ñu yenu ay néegam yëpp andi dimanche ba del si waa ñu yenu néegu seefu tel andi ñu jàppoo ko nit dimanche bu del si rek ñu yenu benn borom kër andi togg ay nu ñu yenu bagage si añ ba Tivaouane sant sànc muy 68 am na guy gu nekk fii fu ñu naan toolu Samba Thiagne boo fa demee te ñu ngi fa bind ak 68 Tivaouane pour ak moom la seen Fallou ne la ba ñu sàncee Tivaouane pour mu métti lool muy dëkk boo xam ne amul ndox ñoo ngi tax ne ca géej ga boobu gaas amul géej ga lañ doon tax ne ci falaawa ba ca géej ga fa la ñu doon jël suñuy takk ànd ak ñun di def ay. mbaboon ñun xale jigéen ñi boobu agresseur amul dara am ñu dem taxanee ko ñoom balaa timis ñooñu doon root ci yoon wala boo jógee boo jógee Kër Massar di ñëw am na benn tool bu la féete nii guy nekk fa fa la ñu doon rootee bàyyi baa moo fa doon béy bu gasoon fa teen ñuy root ñu nekk ci lu metti benn teen fi ne woon teen ba borom daf ko doon tere léegi nag ñuy rootaani di taxanaan di rootaani taxanaan ba yàlla def. chef de village bi ñu naan chef de te boobu nekkagul chef de village mu ne lii métti na mu daal di gas teen suñu gannaaw di fayaroo waaye teen bi doyul ba yàgg ka maayaana coro gas teen ba yàgg gayoo caaji gas teen te am kon daal di commencé am ndox léegi rootaan bi mo des teen ndax taxani bi mo des taxani moom dañu dem taxani ci faraawoon wala ñu aw ci àll ndikkiro euh, wala ñu aw yoonu njaakaar ñu taxani ay matt falaawo wala matti new ñu andi ma yàlla def nit te awoon tew golo bi gaz ñëw lépp ñëw jaar kon ki fi njëkk nekk fi jëkk jëkk nekk chef de village mu ngi tudd Omar Jofe moo fi jëkk nekk chef village ba mu fi jógee kuñ naan Abdoul Gala Ndiaye topp muy ñaareelu chef ba ma fi jóge Gaye Diagne topp ci muy ñetteelu ba ma fi jógee chef del topp ci muy ñeenteelu ba mu fi jóge Buubu Sow topp ci mooy juróomeelu chef de fi noonu ba léegi yàlla na fi yàggati wér. Thiawane Paul amul woon école sama mag mama ba conseil. moo fi utoon benn mbaar def ko ay sàkket uti meetar andi ko di ko fay muy jàngal xam ba état bi ñoo andi meetar ñu nekk ci lool ba yàlla def ay silva jóge fee ñoo may fi ay kalaas ñu nekk ci loolu ba tey alcool am na tey ay kalaas am na seen am na lu ne am na te alcool amul woon oto amul woon tali buñ fi masaa jóge dañuy yenu sunu ndab yi ak ñun sunu yaay buñ fi masaa jóge dañu yenu seen ndab yi soow yi di nopp di noppaliku ba dem Kër Massar jël oto ku ñu ñibbi si dugg seen dugg di yenu di yenneeku ndax fii amul marché amul jën amul dara Dakar lañ doon jëndee jën di yenu di yenneeku ba ñëw si taal suñuy reer léegi ñu waas ko muusal ko galasam dañ doon muusal ba yàlla def sunu yaay xale yi màgg di dem marché ñàkk ba yàlla def sama benn ma bu jigéen ñu naan ko yaay naar bu commencé di jënd jënd andi bu jëndee jënd andi yaay Kumba Sall ak yaay Bojel ñoom ak yaay Sall ñoom ñu andi dugg ba mu dugal ci sama mag maar mu dugal ci ñoom mu sa mars bi nekk mag mars bu toog ci taatu garab bi moo tax ba léegi amel mars ñu toog ci ñu toog rek loolu andi cosaanu mars garab gi ñu loolu amul saret moo am bu la saret boo jëlee saret fay fukki dana ba commencement teewal kii nga wàcc nga xaar oto yi jóge ñàkk suñ ñëwee jël la am na yoo xam ne dañ lay yóbbu ba sànn bu dee horaire am na ñoo xam dañ lay yóbbu caar am na yoo xam dañ lay yóbbu foo bëgg a wàcc wàcc ba yàlla def saret yi oto kalandoo yi commencé daw ci dëkk bi saret yi wàññeeku ba saret jeex ba kalandoo yi ñëw ba genn góor benn sëri mu dinaa leen defar rang-rang allah ji Abdou Aziz Taraaba mu ne dinaa leen defaral rang mu ñëw defaral a rang-rang am na benn kàddu bu nekkoon ci yoon ci mango ni benn mango ne woon na fa ak kàddu ga ñoo xawoon na distance tuuti keroog bañ ko indilee ndox mu naan mu ne fii mooy marnaan te alcool mooy marnaan ca a yàlla defee booy génnee Kër Masar bi keneen ngay génn te alcool bi foo mën a yem ci te alcool maa ngi ne gaañ boo gëstu moom dina gis teel bonade président moo ñu moo ñaanaloo ah, Tivaouane bañ ne nañ ko tuddee Tivaouane Pire ñii ne nañ ko tuddee nii ñii ne nañ ko tuddee nii ba mujj sëñ Abdou Aziz si mu ne dégg naa da ngeen a sànc ñu ne waaw mu ne nu ngeen ko tuddee ñu ne ah de nu mu naan Pire mi naan mu ne Dabakh Malick mu ne nee nañ ko Tivaouane Peulh ñu ne ko Tivaouane Peulh loolu moo andi tey tur Tivaouane Dabakh ñu nekk ci loolu ba tey ne ba jafe-jafe moom jogu ci jeexu ci lii ñu def tey ne ñun de am nañu ci politique xamee ne politique la sax duñ dem ñoo ne cinquante ans te am cinquante ans bi ni xaw nañ xaw cee juum ku nekk ku sa bàyyi sàncoon jaar pour sa taawa gis wala ka topp ci taawa gis yàlla rëyul ñëpp ba ñu demee ba tey si ne ko war koo dañu waroon a wootoo Ibra Dieng wootoom Abdou Gara Ndiaye wootoom Samba Thiagne wootoom Gaye Thiagne wootoom Cilim Thior wootoom Mayaara Thior wootoom Abdoul Sofi wootoom euh, wootoom ma Gaye kii maama moom te fet wootoom Seefu Tet wootoom ifra jongom wotomo jogo soldat wotomo dia wotomo asan abdou wotomo mbay ba wotomo gala buubu wotomo wotomo toubacar suɓe koo deeyoo. dañoo teew. dañ ko war a pencoo. ñu ne ministre mu ngi kono ma teewam ko. waaye war na koo deeyoo. kon nag bu ñu woote woon lool. bu ñu woote woon lool. ñun daañu kontaan ku nekk def li mu ne waroon naa fekkate kër yi kenn ku nekk taal sa cin togg woo say njaboot loolu doon ñu am doon anniversaire. ñu ne politique taxu ñoo jóg ñun anniversaire te am ko moo ñu fa yóbbu. مثلا Alassane Sow ci turam may nuyu imam yi fi toog yëpp ci commune bi di nuyu président Senghor Abdou Senghor di ko jox wàccuwaayam di nuyu délégué de quartier yi am fii yëpp ci commune bi muy ñeent fukki délégué de quartier ak juróom-benn di nuyu membre conseil municipal fàttewuma ci kenn. di nuyu jeun gox yi bu baakha baax di nuyu kilifa yi fi tok yépp suma beugé lim damay waaye kep ko xamante ci 50 cinquantenaire bu Tivaouane peul mo la tax a tay tey ngi lay nuyu di la jox su way di nuyu magu dekk bi ñi nga xamante ci si ñoo tax tay peul bu ni sen taxaway sen andu bu rafet mo indi jamm ci dekk bi

communauté catholique bi communauté musulmane bi fi ci di tamit population bi yépp c'est kenn. mission président Macky Sall man dara 2012 le nom nommé ministre ba fi ñuy wax instance bi gëna kawé ci parti bi ñëw tëngéej woo responsable yépp ñu teew mu leen mu wax ñépp ni leen Oumar Gueye coordonnel ma sama parti ci département bi waaw loolu ku la ko defal déssel tu la dara ñun liñ ko déssel moy ñu bokku ndey bokku bay Papis yow yaay maire Tivaouane Peulh Niague Boubacar yow yaay premier adjoint bi responsable fi teew yépp nekk leen benn ñu bokk ndey ñu bokk baay wax nga léegi ni temps politique léegi mu commencé commencé na sax wax nga ni léegi rythme bi may demee yow dafa xaw gaaw trop ci yow pas plus tu es jeune ma ni accéléré rythme bi man sama rythme sa bos moo war a gën a fort ndax yaa gën nekk jeune nañu accéléré le rythme ndax président Macky Sall jar na ko Nous wax ngeen ko Sénégal 1960 l'indépendance, indépendance 2012 le président Macky 1960 2012 c'est 52 ans 2012 2018 matagul 7 ans 6 ans et quelques bientôt 7 ans président def mais l'Infidef, fi président def c'est la vérité absolue Tu ci le courant. ci wàllu courant li mu fi def kenn mësu ko def wax nga léegi ni mu yokkee courant bi depuis que Tivaouane Peulh et Tivaouane Peulh li président yokkee courant fii ci dëkk bi benn benn président mësu koo def.